دار الخرار والمنى والمنى من سنان يكون أبدا يرده بالذي كخدمتي بدا فخره دلال والإدلال ينخاد لي منه به علال مدحت خبل لدى للبرولي مدحا ونعان مثله كل ولي مدد مدى لدى ما ينبى مع حيوبي وكف الزنبى مدد عند الناس قلوى مدحا كفاني الهدى والبلوى مني إلي خدمة قد لازمت روضته إلى الخيام عزمات ردياني سبت جيلاني عليه رضوان الذي أحلاني ردياني سبت عبد الحسن عليه رضوان يخلد الحسن radiyani sibtu tijani alayhi ridwanu mubidil jani radiyani khulafahul arbaha usridal mukharrabin al mudbaha man lam yakun aniya yarda fal karim radiya anniya ridan laysa yarim jasal ilaahul mustafa xayral jasaa kama taxaabalan wa waxdaran jasaa salaatu man karamuhu yan xayni ala lazi dunal mira an xayni salaatu man karamuhu yan xayni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 sëriñ Cheikh Abdou Mbacke xalifab sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir ak mboolem jabootug sëriñ Abdou Khadir soxna maam Faati Mbacke bintu sëriñ du moom sëriñ Abdou Khadir moo leen di fàttali bis bi nga xam ne da koo baaxoo defal sëriñam waajuram sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir ñu di ko amale ca Baxdaad ñu jàpp ko ren le 11 décembre ñu di ko amale ca Baxdaad soxna si nag di ci woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibi yëpp bàyyiwul kenn ñu ngi nii nag toog ngir fas yéene jox kàddu gi ki nga xam ne moo di sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir mu fas yéene wax ci turu bokk yépp ak woote bis bi ak taxawaay bi nga xam ne mboolem njaboot gi nar nan ko ci am ci bis bi. sunu noppee dinañ jël kàddu gi jox ko ki nga xam ne moo di sëriñ Jili Dieng mooy wax ci mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ Abdou Khadir ak kër sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir ngir taxawaayu bis ba ak organisation bi xanaa kon dañuy jël kàddu gi. bu nu noppee nag danañ ko yëgal mboolem ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci daayira bi ak ñoo bokk ci njaboot gi danañ leen lim benn benn ñu jox kàddu gi sëriñ bi bu nu noppee soog leen a waxuteel ñi nga xam ne ñoom leen koy yëgal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha. di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba fa fas yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu mottali ko di ca teg sëriñ Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khadir te xalifa Cheikh Abdoul Khadir di ko ñaanal moom it suñu borom guddal fanam mottali yéeneem di ca teg sëriñ Cheikh Abdoul Khadir moom suñu Mor Abdoul Khadir xam ne moo toogee jotaay yëpp suñu Mor Abdoul Khadir ak mbooleem njabootu sëñ Modou gépp woote bi nag ni ko soxna si baaxoo defee at mu jot. di jàpp bis ci at mi di ci fàttaliku way juróom ba sëriñam ba soppeem ba euh, di euh, di ko def at mu jot bis boobu moo jub siwaat ñu di ci woo mboole mbokk yi mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp di leen ci teeru te di wax képp koo xam ne amoon na wóllëre ak sëriñ moodo Abdoul Khadir wala mu amoon wóllëre ak sëriñ Abdoul Khadir wala muy ab sopp soxna si neen mi ngi lay woo ci bis boobu bis bi nag bisub ñaan la bisub fàttaliku la ndax ni mu ko baaxoo at mu jot saa su jubsee mu seet kenn ci njabootu uh, Seexul Xadim gi daal lay darajaale bis bi ren nag soxna si wax ne da koo darajaale koo xam ne dafa doonan kenn ci sëriñ Modou Abdoul Khadir muy sëriñ Abdou Samad moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te way mu jigéen di soxna Xari Mbar ku ne xam ne diggante sëñ moodu ak soxna Xari Mbar ni mu demee woon maa xam ne da daan wax ne euh, sëñ moodu la jàppe doomam ndax toppatoo gum ko daan toppatoo ak euh, fu ko tegoon ba da ba ko daan wax sax ne ko nii nga may li fii nga ma féete de ma ne bu fi sëñ Abdou Samad sama doom nekkoon dana man lii nga may def li nii nga may lii nga defal dana ko man kooku nag moom la soxna si dara jaale bis bi ñu ci woo ñëpp nag di wax ne eh, képp ko xam ne gis nga appel bii mooy sa carte invitation di wax ne nag bisub sëñ Modou bisub taalibe yi la ndax moom musta jàppee boppam ab sëriñ wala mu jàppe boppam lenn loolu doon taalibe sëriñ Touba loolu daan loolu la daan eh, wax fu mu toll musta nangu sax ku ne ko diw sab taalibe la danaan sama mbokkum taalibe la fu ñu masaan a waxee danaan man ci taalibe yi laa fare kon bisub sëñ Modou bisub taalibe yëpp la kon ñu ngi ciy woo mboolem mbokkiteel bi ak fuñ ñu mën a nekk soxna si neen mi ngi ñaan ci barkeb Sëñ Abdul Xaadir di ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa ak ki ñu koy defal képp ku fa teew suñ borom faj sa aajo te am nañ ci yaakaar bu baax ndax liggéeyal na ko sëriñ bi liggéeyal na ko way juróom te fàttaliku ñu baax ñi dafa bokk ci li leen di dundalaat kon soxna si neen mi ngi ci woo ñëpp e, di ci di ci di ci di ci tatagal ñëpp di wax ne ñëpp e, di ci wax ne mi ngi ciy séentu ñëpp daal lépp lu waay man ci jàng alxuraan balañ ca àgg ak suñu àgg ca bis ba na ko def di ci wooy daari kaamil yi nga xam ne baaxoon na ko seq ak ñoom suñu waaj bis bi ak suñ ca àggee mooy daari kaamil ju njaareem ak ju Tuubaa ak mboolem daara yi nga xam ne daa nañ yëngu ci bis bi su mosaan di jub si soxna si neen mi ngi leen di fàttaliwaat ne bis mi bis bi mi ngi jub si te loolu ñu ci def ñoom muy jàng alxuraan ak jàng xasaayit ak salaatu ala nabi ak listixfaar yi nga xam ne daa nañ ko def di ko di ko ko jagleel ne lañ wér na ñoom li ñuy def moo ëpp solo ci bis bi kon nee na mi ngi leen ci woowaat baax te di leen ci soññ te di leen ko fàttali di wax ne bis bi da leen koy taxawul rek waaye yéen yéen ko moom kon nag ngeen ci gën a jàpp bu baax nee na mi ngi sant mi ngi leen di sant bu baax ci li nga xam ne moom la weesu di di leen euh, ba di bàyyi xel baax ci li nga xam ne moom lañ jëm kon ñu ngi ñaan yàlla ci barke Sëñ Abdul Xaadir képp koo xam ne teew nga fa suñ borom faj sa aajo suñ borom may la ngërëmul Sëñ Tuubaa ni nga xam ne moom mi ñu wooteel bis bi woy juróom seeral na ko bu lu bëree bari ci gërëm gum ko gërëm ngërëm loolu nag ñu ngi ñaan ci barke bi sëriñ bi képp ko fa teew suñu borom defal la ko ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, mbokki taalibe yi fii daje ah, ci teewaayu sëriñ Ahmadou Mbacke ak sëriñ la ak seen mag ju baax ji di soxna Faati ñu ngi nuyu mbooloo mépp ci seenu tur ah di fàttali rek ne wax ji daanaka li fi am solo lépp sëriñ bi wax na ko waaye soññee rek ak itam loo gis adresse da cay baax ndax ñun day jàpp na ne duñu dara waaye yaakaar na ne sëriñ Mourou Abdou Khayri fu ñu waxtaanee ci moom bu ñu fa teewee ku ñu séen sa xel dana ci sëriñ Mourou ndax yàlla dañoo taqale woon soxna seen noonu mu ko waxee rek ndax wax dëgg moom itam taxawaay yàgg na ci way waajuram ñu di ko ñaanal mu gën a jëm ca kanam ndax toog nañ ca jataay way maa moom ak waaye juróom rek ñu toog waaye juróom keroog wax na ko wax yoo xam ne doo waxee télé doo waxee rajo waaye moom xam na man xam naa sant ko lool gërëm ko lool kon nag bu suñ borom dogalee mu uh, doxee mu di ko ñaanal yaakaar naa ne kooku bépp taalib bu ko dégg da nga ci yomb woo ndax sëriñ Axma ah, ni mu ko waxee rek sëriñ muuru defutoon boppam ab sëriñ ab taalib bi rek la defoon boppam ndax kenn mës dégg mu ne maa sëriñ ñëpp diw maa jëwri nit diw la daa wax maa jëwri seen jëwri rek laa yàlla dogal nag ko baax koo xam ne li may wax rek mënees naa xam ku ko ëppi at de waaye ku gën a gëm sëriñ Touba kenn mënu koo xam moom ndax moom loo ma sa bëgg rek buntu bi gaaw mooy jaar ko Serigne Touba kon soxna Faty boo ko dee wooteel bis bëgg di ko ci defal ay ñaan na nga xam ne waxuma la sax daaree kaamil yooyu ñu lim waaye nanga xam ne benn kaamil bu sell rek boo ko defoon maanaam na nga xam ne egg na ci moom eggin wu rafet te Serigne Mouride damay wax ne ah képp koo xam ne yaa ngi wax ci moom sax del wax ci moom loo xam. ndax man de waggar naa ko waggar goo xam ne xam naa lu ko nit di wax mi ngi koy dégg kon lu ko nit di wax rek yàlla nay doon lu tege ci ak taalu bi ak lu baax kon Mbàkke bis boobu ñu ngi koy woote di ci wooj ñëpp ku dib taalu bi Serigne Touba rek di taalu bi Serigne Abdou di mbokk ak foo mën a bokkee soxna si mi ngi la ci woo lim ci fas yéen def tam moo lépp di jaamu yàlla jàngal ko alxuraan jàngal ko xasida defal ko salaatu ala nabi boo yàlla dogalee jant so mu yewi ñëpp ñu dem foofii la ci nekk ñu dee ci ñaanal nag bu baax say mbir fajoo ci ak njabootu sëriñ Moudou Abdou Khadre gi yëpp ndax lépp lu ngeen def rek tege na ci aw yoon tege na ci ndigal ndax defoo loo réeroo ak sa baay seex defoo loo réeroo ak mi nga xamante moo toog togaayu sëriñ Moudou yéen ñëpp ngeen bokk doon ñoo xam ne ay bokki kese ngeen bu dugg duggutoon sëriñ Touba ci yéen a bokk lépp kon yaakaar naa ne. boo ko dee woote di ci woo taalibe yi taalibe yi dañ la ci mën a wusi ñi deen xamal na ne sëriñ Muudu ci jëmmi boppam moom maanaam lu ko waaye defar rek sooy boo nga fas ca pas-pas yu mag ndax lu doom doon lu mën doon la da ngay tàmbali lu mu ci mën doon moo ko yenu moo ko eggale te itam ñaanal sa waajur am na solo lool lool lool rawatina waajur woo xam ne ci nekkam gërëmoon na la te loolu yaakaar naa ne ñi daa tooge jataayam xam nañ ci dara ndax yàgg ngaa sonn ci moom lool fu mu mës a nekk fekk nga ko fa te booba itam du caageen dangay dem di wuti sayir booba baatiin nga daa wuti ndax fu mu mës a nekk rek defar nga ñam bu baax ñaari fekk ko fa woo xam ne il faut rek mu ñaanal la ci ndax man lii ma la bis boobu dafa am loo defar indil ko mu dee ca eggale loolee ba egg sax ci sa wajur ci ak cant wu jigéen kon yaakaar naa ne boo ko dee wooteel bis tënk lépp ci taalu bi yaakaar naa taalu bi yëpp daañu la ñu di ci woo ñëpp rek rawatina nag doo laxasaay yi nga xamee ne sëriñ Muudu liggéeyam moo doon bàddali leen ndax sëriñ bee ko joxoon ndigal loolu moo ko woon ne ko kaay topp tool ma doomi jàmbur yi ñu ma jox te aw ma jot ak ne ci ñoom ba mu ko ko waxee ba ni mu wujjee boromam ci dong yi lay xëy ci lay gont ku fi mas a jaar rek boo amee ngërëm moo seere la tax ñu defal la ngërëm moo la jàpp yóbbu ci sëñ bi mu ñaanal la boo egseeg sa walis moo la yóbbu ba nam la la war say bokk te ku ci mas a ku ne boo tëddee ba gegganoo sa loxoom day jot da nga xam defal na loo xam ah mënuloo ko sa bopp sa mbokk mënuloo ko ndax ak taalibe dong ko ñoroon ci la doon yëngatu kon daal ñu ngi woote bis bi di ci jiital nag dongay laxasa yëpp ñu xam ne luñ tudd tudd sañ Moodu ñoom kenn ëppalewu leen ci ndax moom ñu ne nekkoon ah doon ak ñun benn wàcce boppam ba tolloog ñun ba man ñoo jariñ ban jaare sa jariñoo kon soo na Faty ñu ngi lay ñaanal bis bii nga yàgg koo taxaw te loo ci def rek yàlla na yàlla na jëriñ jullit yëpp rawatina taalibe Serigne Touba rawatina nag sa taalibe maam yi ñi ngi ñaanal bu baax a baax itam nag sa waay bi nga xam ne moo fi nekk di Serigne Cheikh Mbacke aw fanam gudd te wér di ñaan itam ba tey Cheikh Abdou mi nga xamee ne mooy Serigne mu tey ci kaw suuf te mu tam kenn xamu ko ci lenn ak taalibe kon ah bis bi mi ngi noonu la 11 décembre la ah mi ngi koy defee ca Baxdaat di ci wooñ ñëpp nag. di bëgg itam lu waaye man ci alxuraan nga jàngal ko defal ko addiya lu waaye man ci xasida nga defal ko lu waaye man ci ay salaatu ala nabi lu baax lu mu mën a doon boo ko déggee rek na ko def defal ko sëñ Moodu addiya ndax dana ci jot ndax ah moom doon na koo xam ne yomb naa ñaanal ndax làq na ngërëm yu bari mboolem doomi Serigne Touba ju fi jaar rek làq na sa ngërëm kon ñaanal ko mu egg ci moom yomb na te pas-pas bi ñoom di ko magal ndax àttan na lu bari li may wax rek moom li ci ëpp daal na kenn ku ne xam ne foo teew sëñ mu teew na ci sa pegg nga yàgg koo taxawee yàgg say bokk jërëjëf. mbokk yi jërëjëf kàddu yooyu nga dégg sëriñ ahmadu Mbacke wax ko ci mboolem turu njabootu sëriñ Abdou Khadir ak mboolem njabootu yoonu seexul xaddim wépp ak ki nga xam ne moo di sëriñ Thierno Dieng moom tamit sëriñ Djili Dieng wax ci turu mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ Abdou Khadir soxna si nag nee na mi ngi yëgal bis bi mboolem ñi mu bokkal sëñ Touba di ko yëgal mboolem waa kër sëriñ Mor sëñ Mor Doj Mbacke ñu ngi ko yëgal ñëpp. di ko yëgal waa kër sëriñ Afia Mbàkke yëpp bàyyiwul kenn di ko yëgal mboolem waa Baxdaad mi nga xam ne fa la ñuy defee bis bi te sëriñ bi bëggoon Baxdaad lool nekkoon fa tamit ku nekk xam na taxawaay bi nga xam ne ñoom ñëpp daanoon ko am mi ngi leen koy yëgal mi ngi koy yëgal mboolem turandooy sëriñ Abdou samat yi bàyyiwul kenn di ko yëgal daayira bi nga xam ne mooy daayira sëriñ Abdou samat moom sëriñ moodu ak seenu taxawaay nee na mi ngi koy yëgal sëriñ Amsatu Sàll di ko yëgale tamit sëriñ Njaaña doomi sëriñ Amsatu Sàll di ko yëgal tamit sëriñ Moussa Sall dakaar sëriñ Moussa Silla Dakar di ko yëgal sëriñ Mor Silla Dakar di ko yëgal fédération Dakar ci njiitul sëriñ Cheikh Gumbala di ko yëgal fédération Touba ci njiitul Mamor Jatara di ko yëgal daayira Italie ci njiital sëriñ Mamor Sànge di ko yër yëgal sëriñ Abdou Mbay Italie di ko yëgal sëriñ Abdou Lahat Ka maire de Touba nee na mi ngi ko ko yëgal bu baax di ko yëgal sëriñ Abdou Lahat Seck saa dàgga di ko yëgal tamit ki nga xam ne moo di Galo Ba ca Mbàkke mi ngi ko koy yëgal di ko yëgal daayira Baxdaat ci njiitul Baay Tuubaa Mbàkke di ko yëgal aboo Xuma commerçant di ko yëgal Baay Daam loo Tuubaa di ko yëgal tamit ki nga xam ne moo di aboo Xuma moom i tamit commerçant di ko yëgal di ko yëgal Abdou Saw di ko yëgal Lamine Mbeng di ko yëgal Moussa Silla Dakar di ko yëgal Seex Fall di ko yëgal mboolem ñëpp bàyyiwul kenn di ko yëgal di tamit ki nga xam ne moo di Ibrahima Kanji soxna si nee na mi ngi yëgal mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Touba ak taalibe yi ak mbokk yi bàyyiwul kenn wëllëre yi nee na mi ngi leen koy yëgal ci bis bi nga xam ne amul lu dul bis bi nga xam ne moo ko boole ci sëriñ Touba te mooy sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne taalibeb sëriñ Touba la defoon boppam muritab sëñ Touba la defoon boppam bëggoon sëriñ Touba di ko liggéeyal amoon ngërëmal waajuram nee na ngërëm loole nga xam ne sëriñ Abdou Khadir seereel na ko sëriñ Modou ci waxtu wu nekk ci guddi ci bëccëg nee na ngërëm loola la yéene ñëpp nag ñu jariñu ca moo tax mu leen di woo ci bis bi nee na képp ku ñëw ci bis bi nag yàlla na yàlla faj say aajo ci barkeb sëriñ Touba programme ba nii lay tëdde bu ñu xëyee dana amal njàng alxuraan ak xasida ak salaatu ala nabi bu nu demee ba tisbaar ñu julli bu nu demee ba takkusaan ñu wóyal programme ba sëriñ xaadim ngay jàngkat dina fa jàng ak mbooleem kat yi ngeen xam ne yéen a ngi leen di xam bu nu demee ba julli timis nag sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdou Xaadir mooy ñëw yeewe gan ña soxna si waajalaat ko nee na mi ngi ñaan képp ko fa teg sa tànk wala nga ñëw fa yal na yàlla faj say aajo ci barkeb sëriñ Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer